waaye jàmbaar la ndax ngay def Bercy muy taw dëkk bi yëpp taa train yi dawul mais terewul terewul Faramaren jóge fu ne ñëw. waaw Wally Seck bu mu jógee foofu. dem touche pas à mon poste émission bi doy waar. kon xam naa ne ku teelu jënd sa billet. ah dina doy waar man samay abonné yu bëri ñii ñi ngi naan man man Hollande laay jógee ñii naan man man Suède laay jógee damay dem damay dem jàppale ci Wally. dund Paris bi. wax ci Brexit bi mais nag li gënoon rafet ci li ñu yaakaar mooy waroon na delloo njukkal Moustapha Dieng ak Dija Dija ñi nga xam ne vous et nous ñoo ko yóbbu woon Bercy. Wally Balago Seck doom de Paris le 26 octobre ñëw na ba pare juróom-benni fan moo ci.

ndax moom ba mu ñëwee gis public bi ni mu mel jour boobu dafa waaw. lii moo tax nag Pape Diouf ñëpp war a kontaan ci berseem ndax Wally Seck bu defee 7000 places. mais dafa waroon ne tàllee lamp kon war ngeen mun comprendre Pape Diouf tamit nan la choqué woon ndax 10 000 places 9 000 et quelques places ak ñi nekk ci biti di yàq. ci barke Serigne Fallou ku kontaan nañ ci ñi nga xamante ne ñii ñoo duggul. ñu leen di masawu parce que xeex bu rëy rëy lañ ñu créé ci mbedd mi ba police ñëw mbedd mi dafa fees dell ak Papa Diouf fa nii taj ndax bu leen fàtte ne wàlli jàmbaar la ndax ndax ngay def bersi muy taw taw dëkk bi yëpp taw train yi taw mais terewul terewul faramaale ni jóge fu ne ñëw daal di ko delloo jëkkër. le 26 octobre nak moy gën a nar a doy waar ndax lu gis nga sa boobu bu feesee bu fessé lolou nak moy moy mooy dàq Bercy ndax Bercy feesul woon Bercy Wally Seck bu feesul woon mais Dôme de Paris di def 7000 places imaginer saal boobu bu fees Wally Seck ak ni mu aayee fan yi bu leen fàttali ne Wally li muy gën dem ay wayam dafa gën a neex ndax acoustique bi boko ko déglu li mu way dafa neex xëy na nag xaw na ak acoustique yi bu koy def xeyna na ko def 3 minutes 4 minutes mu jeex mais xeyna na dafa xaw a gudd mais vraiment Cheikh ñaan li mu tëgg tëgg papis la ñu dëkk vraiment Ramadane moom amatuñ lu ñuy wax ci ñoom li ñu jaaxal mooy Wally Seck ba léegi li tax mu commencé wooy désolé di sànni ay picc ñi nga xam ne bëgguñu ko wayam bi mu woy symphonie boobu tamit mi ngi ci wax yàlla mooy maye yemu ma ak ñoom nduróowu ma ak ñoom yàlla mooy maye di sànni ay picc xëy na nag ñun pour ñun Wally war na dépassé loolu quoi fi mu nekk li mu war a def mooy mu concentré wu daal di réussir doomu de Paris bi Wally Seck wax ci Bercy bi ci li yaakaar moy waroon na delloo njukkal Moustapha Dieng ak Dija ñi nga xamné vous et nous ñoko ko yóbbu woon Bercy. ñuy djup pour yak dem nañ ba à un moment donné amna ay certains sites yu di génnee ne que Bercy bi sera annulé et cetera. dama len di sante bu baax baax parce que dañ ñoo yok jom. et je pense que lolu suñu borom dimbalé nañu ci ba même buñ ci amul 90 wala 100% pour cent sax am ci dara. on est une famille nous sommes ensemble c'est-à-dire dañoo yëkkateendoo xàcceendoo dóorandoo.

ñoom Moustapha Dieng nee nañu Wally Seck da leen romb nii nuyu ko Moustapha Dieng nee na Wally Seck ko mais de façon Bercy bi réussir na ñoom Moustapha Dieng xaw nañ ci perte xaalis mais li ñuy wax rek mooy Wally bu ñu waxati ci Bercy lu mu métti métti na wax ne ah maa ngi remercier Moustapha Dieng maa ngi remercier Djidia ndax ñoom ñoo ma fa yóbbu. ñoom yow dee nga defe naa dañ la desal 45 millions. dem ne woon dañu porte plainte nga baal mais loolu tamit waaw c'est le Sénégal gi baba jigéen ñooy lamb dina mën destroy

Bercy la nuit du Mali Pape Diouf dafa am universal waaw kon li ñuy wax rek mooy Wally Seck ñu ngi koy encouragé xam nañ ne le 26 bi bu soobee yàlla dina fees show bi dina neex ndax waale man li ma gën a neex ci moom mooy lu ñuy gën a dem dem show yi dafay gën a neex way yi dafa gën a neex waa Ramadan dañoo waane kon xam naa ne ku teelu jënd sa billet ah dina doy waar man samay abonné yu bëri ñii ñi ngi naan ma man Hollande laay jógee ñi naan ma man Suède laay jógee damay dem damay dem jàppale ci Ni ñëpp ñu ni italien ñu France ni pour a dem ndax c'est la musique sénégalaise qui gagne